Euh, sama xarit bi doon wax fii maa ngi koy nuyu di ko fàttali na ko joxoon nañu un million mais un million bi ñu joxoon ci Touba ci kanam ci defaru ruudi la woon doon defaru garab yi bàyyi ci xel euh, Touba ci kanam euh, man ci ñu ko sos laa bokk ci ñetti nit yu ko sos ci laa bokk ñu ngi koy félicité nag ci un million bi mu ñu jox parce que lu baax la parce que soxla nañ ko pour defar Touba jërëjëf monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu di nuyu mboolem ñi nga àndal di wax ne Euh, liggéey bi nga xam ne ministère environnement ñu ngi koy liggéey ci réew mi euh, liggéey bu am solo la boo xam ne bu yaatu la di wax ne euh, na ngeen bàyyi xel bu leen sonn ay gone ñoo fi nekk di coow parce que xamuñ fii metti ndax yëguñu ne paa bi ak ak doom ji ñu ngi waxtaan loolu yëguñu ko ñoom li li li bàyyiwuñ ci xel sax yëguñuy xew kon nag loolu jërul sonn paa bi ak doom ji bi leen sëñ Muntaxa jubóolee ba tey ñoom ña ngi wax seen waxu suuf la ñuy waxante nag ñun gone yi mënuñu koo xam moo tax bu leen ci sonn euh, leneen li ma lay wax nag mooy Touba gee ñu dëkk moo tax may wax euh, Touba eaux et forêts ba fa nekk euh, maa ngi nuyu colonel Baydi Ba di ko félicité ci taxawaay bi eaux et ba fa nekk ñu jàppale leen baax na ndax parce que Mbàkke rek la am amul Touba te benn oto rek la ñu yor te Touba fii may wax yow nii li fa nekk ci ak jur di fa yeewoo bari na trop. te àll bi buñ ko préparé wut daay gi ñax yi daay gi dana lakk ñax mi te loolu bëgg nañ ngeen bàyyi ñu ci xel ñu fexee ba biir Touba mu am euh, cas boo xam ne dana mën a taxaw euh, dana mën a taxaw dëkk ba beneen bi ci topp nag mooy li nga xam ne moo jëm ci mala yi nga xam ne dañuy raam bëgg nañu gën leen a protéger ci Sénégal parce que baax na ñu protéger leen ndax buñ leen protéger wut ñu bari xamatuñu ko te dañ koo soxla pour di leen gis ndax am du yëpp ñooy gaañu gën bëgg nañ ñu gën leen a protéger parce que gis nañ ci parc an taxawaay ba fa am mais nag ñu gën ko ñu ubbiwaat ko gone nit ñi dem di ko visite dana ci baax di wax it ne euh, colonel Baydi Ba euh, ñu ngi koy féliciter jàppale yi ñu jàppale ci ferme yi parce que ñun dañoo créer ay ferm mais nag am nañuy kéwél mais ñun suñuy kéwél dañ koo importé te suñu ferme comme neex nga ñëw visite parce que ñun loolu lañ juddoo loolu lañ xam mais nañu xam ne kii li ñuy yi ñuy wax ñun bokkuñu ci tey gëm nañu ne euh, sab liggéey du ay yor awit ay kéwél di ko jëfandikoo loolu intéressé wu na li la intéressé mooy liggéeyal réew mi nit ku ne nag ca ngay liggéey ca ngay accidenté man fii ci assemblée nationale la accidenté te bëgguma ko woon te loolu lu leer la yàlla rek mooy dogal ki ne ci ngay liggéey ci la am ay jur surtout tuxal ay yóbbu ay kéwél mala dafa jafe ndax man jëlee naa fii ay mala yóbbu ko euh, jëlee naa ko Touba. di ko yóbbu journée élevage dee la ñetti autorise ci yoon loolu bëgguma ko tam sama yëf la li ngay diggéel réew mi bu ci boolee ay wax seen taxawaay doy na sénégalais yi parce que looloo tax ñu wóolu leen delloo leen joxaat leen réew mi du yéen dong yéen a demoon di campagne yi juróomi candidat moo amoon ci réew mi juróomi candidat yi bi ñu amee ci réew mi nit ñi voteluñ leen te pourtant yii ñuy wax doon nañ ko waxee nit ñi voteluñ leen président Macky Sall moo leen doy moom leen nit ñi voteel nga dikkaat tey ñu jëlaat la yow def la ministre contre la nekkoo fi woon yow dong sab liggéey moo tax ñu jox la ko kon nag ñu la ciy félicité bu leen déglu ñuy coow ñuy coow li leen intéressé mooy naka la ñu def ba coow am ci réew mi réew du liggéey ñooñu wax naa ko fii int réew mi dox intéressé wu leen mais te coow li bëri bari ñoom sax intéressé wu leen ñoom ñuy wax intéressé wu leen parce que seen kilifa yi ñu am li leen intéressé nan la ñu def ba dund nan la ñu def ba dund koo xam ne tey euh, li ñu wax ci réew mi li fi yàqu lépp ci ñoom la jóge mais ñu baal ma bëgguma dal ci kaw Ablaye parce que suñu kilifa la te gis naa fi mu teg président Macky Sall bëgg na ko yërëm na ko ñu ngi koy jàppale coow lee fi nekk moom mi koy jàppale ñii coow fii xamuñu li xew mais Ablaye bi suñu maam la suñu kilifa la suñu maam la di xaritu président Macky Sall ñu réerewuñ ci dara.